war boole la situation de la dissolution de de de Pastef. bokkoon nga bokkoon nga PAI. PAI a euh, été victime euh, de cette arme de de de dissolution euh, presque plus de plus de cinquante ans après on revit le même le même scénario c'était à faire ou pas. attends aujourd'hui au vingt et unième siècle <laughs> nga naan da ngay dissoudre un parti politique. Pastef tu tu le dissous mais c'est sur le papier organe yaa ngi fii kii yaa ngi fii tëj nga siège bi et cetera mais il il il il se parle il discute je, pense que c'était c'était la dernière des choses à faire au contraire su fekkee ne am nga un parti qui est comme on dit légal qui travaille sur de, de la façon transparente au au vie au su de tout le monde moo moo gën moo gën a baax sax nga nga bàyyi parti bu mu nekk un parti clandestin <laughs> parti clandestin pour ñu mën a infiltrer état sax ci lay gën a yomb